li si yéenekaay yi ak Mouhamadou Biteye dal leen ak jàmm dëkku Mame Seydi Hadji Malick ji day am na gan ni démb gan gu yàlla teral dénk la Walfadjri yéenekaay nañu président di Serigne Babacar Sy Mansour ni mu ko daan defee rek at mu yàlla sàkk bu ñuy waajal nag gàmmu di guddi gi ñuy màggale gan ak àdduna yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nañu Serigne bi day teeru na ko tatagal ko njiit réew mi nag yëkkati fa ay kaddu rek ndokkeel njabootu ko Seydi Hadji Malick ji ba noppi rafetlu rek daal di nag ŋàññaale bu baax a baax ñi bugg a mbubboo l'islam di indi fitna ci àdduna bi moom moo tax mu ne Sénégal day soxlawu ñu ñuy jéggaani diine l'islam ndax nag lu tolloo junne at ngi ni ñu nekk ci diine gi di ko doxal nu mu waree bon nag ñi jug rek bëgg a jàppee l'islam diine fitna moom ñoom ñooy terroriste yi di pee bopp nag ay jihadista le sol yéen kay ne ñun ci réew mi day dañu l'islam bëggul fitna bëggul bañante jàmm la xam booloo Ndiagare Lamtooro rek teewaayu njiitu réew ci waa adduna bi rawatina rek waa Sénégal ñu di ko woowee nag Serigne Babacar Sy Mansour te bàyyi nag di wax rek Serigne Mbaye Sy journal bi nañu mbéy gi ci boppam la bëgg mu dakk moom moo tax nag ko woowee te Mbaye Sy rek du la wuy benn yoon mu teg ne daal dafa am benn bis rek mu am nag ku mu dajeel kooku naan ko rek Mbaye Mbassou yaakaar ne nag da koy tagg fekk rek dakaa tooñ ndax nag mi ngi naxasal nag turam dëgg di Babacar Babacar Sy Vox Populi nañu sëriñ Babacar Sy Mansour day topp nag kii ko kenn wooweeti gi ñu bi nañu ay njiit yu am doole sax te xam rek ni nguur di doxee ndax ku ci ci ñoom rek ñam nga nguur gi ñu ci mel ni Idrissa Seck Madické Niang Pape Diop Issa Sall ak Hadjibou Soumaré Vox Populi nañu bu yóbboo day Macky nag sóoraale leen ndekat Idrissa Seck mi ak ñi mu àndal daal ñi ñu àndal ci ay nit romb nañu ñu benn million ngi doomi aadama la waxuma laa nag ñu nekk rek ñaareelu force foofee ca pencum ndaw réew ma gannaaw nag Benno Bokk Yaakaar ndekat bi ñu boolee seen i day am nañu fukk ak ñetti député journal bi nañu ñoom day ñi ngi waajal bu baax wote yi wote yi bokk moomee li la quotidien ni kaay nañu waa Forum Civil yi day seen bëgg-bëgg mooy nag ñu amal ko ci atum bi démb nag lañ doon dajek taskatu xibaar yi doon waxtaanee mbiru dialogue politique bi am na ci réewum Sénégal la muy nag dialogue politique bi dajale téeméeri doomi aadama ak rek dialogue bi am ci diggante Abdoulaye Wade ak kii Sall te loolu yenewul maanaa Sud ñu dencoon day ñu def ko ñaar fan juróom-ñett ci weeru juin ba noppi nag ñu saytu rek fichier électoral bi ci njeextalu weeru novembre 2019 defee nag ñu mun a siiwal liste yi ak contentieux yi ci diggu weeru janvier ba ci rek diggu weeru février Famara Sagna observateur nañu moom yi moom mooy ki tagga nag dialogue national bi ndekkat ba fii day kenn installé gu ko ngir nag mu tàmbali liggéey am te bañ ko tabeeg léegi yàgg na lool journal bi nag mu toog di rek mu jural leen ay épidémie ci yooyu leen te moo ne day Mauritanie gii rek waroon naa doon nag seen njàngat njàngat li ñu def ni ki démb rek ba ñu jàkkaarloo ak doyen des juges mujj ci mbiru Petrotim bi Vox Populi nañu ko bi ñu leen dane daal ñoom li beñ rek moom mooy pétrole bi indi fitna ci réewum Sénégal ni mu ko rek ci yeneen réew yi Mout Bandey tontu nañu ci li leen laaj ngir rek gi mun a feeñal boppam bu baax a baax ba yóbbu rek Ballon d'Or 2019 Vox Populi loolu la Sadio bëgg moom moo tax sax mu dina def kéemtalaay kàttanam rek ba jël ko stade yéene kaay nañu tey ji day Sadio moom dina jongante waat beneen déet sonal ba ñu waa Naples bi Kalidou Koulibaly nekk itam day tey ji la xam nag seen ëllëg ci Ligue des champions ndax dinañ jàll huitième de finale am déet nde ñoom ak Salzbourg ñoom ñooy dajee stade yi ne kaay nañu am na beneen jongante sax bu rëy buy am ci Ligue des champions bis tey ji muy ci diggante Dortmund ak Inter Sénégal Congo ak Sénégal Eswatini muy ñaari jongante yoo xam ne journal bi nee nañu Salif day du ci bokk ndax nag dafa am gaañu a